docteur Mounirou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi di fay bu baax. yow enseignant chercheur nga université bu Thiès nekk chercheur associé IPAR am gëstu bu yaatu bu ñu leen euh, dénkoon. jëm ci wàllu commercialisation financement filière horticole gannaaw gestu bi lan ngeen ci tënk. waaw dañuy sant rek di gërëm waa ARM euh, waa IPAR aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon étude bi di ko doxal ci ndigalu ARM nga xam ne ñi leen jàppale ci loolu mooy waa FAO li ñuy wax équipe SAPA bi nga xam ne ñu ngi Sénégal di def liggéey bu mucc ayib ñu ngi leen di féliciter di wax ne enquête boobu ñi ngi ko commencé woon depuis mois d'octobre parce que xam nga plateforme de commercialisation maanaam jumtukaay bërëb yi nga xam ne moom la nguur gi di dimbalee dimbalee baykat yi pour ñu mën wattu seen seen seen mbay loolu ARM mi ko commencé woon depuis 2014 muy lu ñu woowee ay plateforme de commercialisation bi ñu ñëwee ba 2016 nga xam ne ñooy bay gis nañ njariñam ñu commencé di dem ci plateforme yi parce que li ñu constaté woon moom mooy Sénégal PRACAS bi mooy programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise bi ñu ko dugalee 2014 li ñuy bay Sénégal dafa yokk yokk yokk bu rëy ba ci quatre mois de consommation à huit mois d'autonomie c'est-à-dire que même Sénégal boo xoolee tey ji tey ji tey ji am nañ autosuffisance ci oignon mais li ko yàq moom mooy que ne euh, vingt à trente pour cent production locale boobu day day pourrir day yàqu at mu jot paysans yi mënuñoo suivre loolu lépp li ñuy bëgg rek mooy état bi gaawantu defal leen gel pendant huit mois ñu gaawantu écouler seen i produits mais aussi bu ñu bëggee dem ci douze mois xam ne état bi dina permettre produit local mën a disponible il faut que mu am ay bërëb yu a denc loolu mën ko conserver ba du ci la ARM dugale woon innovation boobu muy plateforme yi di aider paysans yi ñu gis njëriñam nag tey jii ñu ne redevance bi nga xamante ne bii texte yi nga xam ne moo créé ARM prévoir na ko depuis muy texte bi 2005 bi di texte bu 2013 bi décret bu 2013 bi ñoom nangu nañ ARM am benn redevance bu koy tax muy def liggéeyam donc euh, redevance boobu moom lañ doon def enquête dem ci dem nañ ci fukki plateforme ak ñett yoo xam ne ARM moom moo fexe woon ba ñu taxaw ñu enquêté foofu laaj baykat yi foofu ba xam redevance so ñoo ñoo soxal na leen ñu ne ñoom ñëpp d'accord nañ ci ci redevance boo xoolee pourcentage quatre-vingt-dix pour cent ñu ñu enquêté ñëpp nee nañ ñoom nangu nañ ko redevance am waaye dañuy wax ne redevance bokkut ak taxe da nga koy joxe en échange service donc loolu ñoom insisté nañ ci loolu waaye loolu aussi mooy li li ARM bëgg donc redevance boobu bi ñu ci defee enquête gis nañ ne paysans yi soxla nañ ko euh, euh, li ñu li ñu li ñuy laaj aussi ñun noté nañ ko si si wàllum service ak ci wàllum contrepartie ak ci wàllum li nga xam ne moom lañ war a jëf moom lañ ko war a jëfandikoo bi ñu ñëwee aussi laaj nañ leen ñaata lañ mën a fay boo xoolee muy importateur de produits horticoles yi ak imp ak producteurs locaux yi yëpp boo xoolee foo dem rek téeméer boo jël juróom fukki d'accord nan pour que fay. ñeent ba juróomi fifteen ci kilogramme bu ne waaye ñun biñ ñëwee def enquête bi dañ ne ah ñeenti fifteen ak juróom fifteen ci kilo bu ne loolu mën naa diis ci ki nga xam ne moo koy jënd kon nag nañ jël deux francs un virgule cinq francs nga xam ne du am benn jeexital ci ni ko nit ñi di jënd ARM dina ci mën a rassembler maanaam dajale ci ak koppar yoo xam ne dina ko permettre mu gën a améliorer gën a yokk lam daan jëfandikoo lam daan dimbalee paysans yi pour que ñuy conserver ba yà ba yi mën a wàññeeku. tey bu ngeen doon euh, collecter redevance boobu ci yan anam lañ koy jaarale. waaw xam nga bi ñu defee enquête bi aussi gis na lu bari ne que ne gis nañ lu bëri redevance am na biir Sénégal boo xoolee télécommunication am na redevance sur le plan de la de ASEPEX am na ay ay redevance commerce bi am na ay redevance euh, boo xoolee aussi même RTS am na redevance bu ñu koy fay boo xam ngi jaaree ci facture Sénégal yi euh, boobu ba léegi donc lu lu bees ci am na lu bëri lu ñu ko mën a defee mais ñun moom mooy ARM mënoon na ne moom man maay man maay jël redevance bi parce que ARM am na expérience ci ay lettre de voiture ak ay yooyu yëpp am na ci expérience ci wàllu plateforme mais li xam ne bu ñu fayoo ko redevance bi déposé lañ ko parce que bu ARM ne moom mooy jël redevance bi xëy na mën na sooxee ndaxte ARM nekkul ci gox yëpp yu sori yëpp te public moom nekk na fépp donc bu boobaa dinañ ko a jël mu mu mu ARM mën cee jot su ko defee ARM mën cee def utilisation mu gaaw donc loolu mooy li nga xam ne moom lañ proposé un franc bi nga xam ne moom lañ proposé pour les importateurs waa ARM ñoom yaakaar nañ ne bu ñu nee deux franc ci producteur locaux locaux bi war mën ne deux franc ci importateur bi parce que importateur bi ñu dañ ne un virgule cinq doy na waaye loolu aussi euh, lu mën a nekk la. tey jii bu ñu tëralee redevance bi ba ñaata ngeen yaakaar dajale. li ñu xam rek moom mooy que ne bu ko appliqué dina mën a dajale. huit cent à neuf cent millions de francs CFA ci première année yi te buñ continuer bañu yaatal ko ci yeneen produit yi ARM dina mën a dem ba am moyens yi muy tabaxee fukki plateforme yi mu bëgg at mu jot mu daxal ko ci ay gox su ko defee Sénégal mën a dem ba produits locaux yu ñuy produire dara du ci yàqu te dool bu boobaa dina tax ba la ñuy jëggaani bitim réew ñu bàyyi ko te Sénégal dina mën a nekk sax réew boo xam ne dañ fiy jël ay produits lekk ba doyal di ko yóbbu ci yeneen réew yu mel ne Guinée Bissau yu mel ne Mauritanie ak yu mel ne Euh, Guinée Conakry ak Mali. docteur Mounirou ñu ngi lay gërëm di la sant. ñu ngi leen di sant bon. docteur Mounirou Ndiaye bonjour. bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Thiès, chercheur associé à l'IPAR. Vous avez coordonné une étude euh, sur le financement et l'amélioration des conditions de commercialisation des filières horticoles. Que révèle cette étude? Bon, d'abord, il faut féliciter l'IPAR qui a conduit cette étude, mais également remercier euh, l'ARM et l'équipe SAPA de la FAO qui nous ont fait confiance conduit cette étude qui était destinée à aller enquêter d'abord au niveau des plateformes pour tout simplement recueillir Euh, le sentiment des, des utilisateurs de ces plateformes-là. Il faut rappeler que les plateformes de commercialisation, c'est une innovation qui avait été introduite par l'ARM depuis Mais à partir de les utilisateurs, c'est-à-dire les agriculteurs, ont commencé à comprendre leur intérêt, leur, leur utilité et ont commencé à donc fréquenter ces plateformes-là pour le stockage, la conservation et un certain nombre de services euh, pour les aider à, la mise en marché des produits, à la on sait qu'au Sénégal, 20 à 30 pour cent des produits horticoles sont perdus après la récolte. Et il fallait donc trouver une solution par rapport à cela pour, tout, aussi et tout simplement permettre à l'État de, de satisfaire son objectif de substituer les produits locaux aux importations. Nous sommes passés donc de quatre mois euh, de gel des importations à actuellement huit à neuf mois de gel des importations. parce que tout simplement l'État aide les paysans à ne pas perdre les récoltes parce que euh, ces pertes post-récoltes-là sont énormes et euh, elles justifient de plus en plus d'importations. Donc aujourd'hui, euh, l'étude qui a été donc faite a montré que les utilisateurs de plateformes, c'est-à-dire les agriculteurs, les, les paysans, les, les producteurs horticoles sont favorables à l'introduction de la redevance qui est prévu même dans les textes de création de l'ARM, que ça soit le texte de euh, Maintenant, il faut passer à la phase opérationnelle, à l'introduction de ces redevances. Et cette enquête que mois d'octobre a Nous avons euh, donc restitué le, le rapport euh, d'enquête de terrain le 14 février 2020. Ce rapport-là a montré que les agriculteurs ou bien les producteurs horticoles sont favorables donc à l'introduction de cette redevance-là. Ils ont formulé leurs attentes, leurs besoins, notamment l'amélioration des services existants, mais l'introduction de nouveaux services. ils ont également montré leur propension à payer une redevance. plus de que cela soit pour les producteurs locaux que pour les importateurs, plus de des, producteurs locaux ou des importateurs sont favorables à la redevance, mais aussi ils sont prêts à payer 3, même jusqu'à 5 francs, francs CFA par kilogramme euh, pour une redevance. Euh, c'est ça que l'étude a fait. Maintenant, euh, le mardi dernier, nous, nous avons bouclé l'étude par, une, par un rapport d'option de politique qui a donc estimé montré comment recouvrer, qui a montré également comment utiliser donc ces fonds-là et décliner une feuille de route pour la mise en œuvre. Et comment va s'opérer la collecte de cette redevance Il y a beaucoup de scénarios qui ont été proposés. Vous savez que la redevance est une pratique euh, qui n'est pas nouvelle au Sénégal. Nous savons qu'il y a au niveau de la RTS, la redevance est collectée par euh, la Sénélec. Nous savons que pour la RUTEL, le service universel des télécommunications, c'est prélevé la Sonatel. Nous savons également que pour d'autres types de Euh, telles que par exemple la redevance euh, au niveau du commerce extérieur, euh, la ZEPEX pratique les redevances. Donc les redevances sont pratiquées un peu partout, que ce soit au Sénégal ou à Il y a beaucoup d'approches. Ce que nous avons proposé, c'est que l'ARM aurait pu recouvrer, mais l'ARM n'est pas présente au niveau de, tout le territoire sénégalais. Il peut y avoir des coûts pour aller faire les versements et autres. La redevance aurait pu, par formule qui est largement utilisée, c'est le compte de dépôt de l'ARM au, au, niveau du Trésor. C'est-à-dire que les gens versent dans un compte spécifique ouvert par le Trésor public pour l'ARM. C'est cette formule-là, d'ailleurs, qui semble être la formule qui est plébiscitée, même si la banque agricole et d'autres formes de, recouvrement existent et euh, ces formes-là, c'est l'ARM qui, à l'issue de cette étude-là, va donc choisir le mode qui lui permettra d'encaisser le plus rapidement possible ces fonds-là afin de faire les activités pour lesquelles ces fonds-là sont collectés. Et vous estimez pouvoir collecter cette redevance jusqu'à quelle hauteur pour le moment, nous savons qu'il faut être prudent. Nous avons fait des simulations et des estimations pour deux francs CFA parce que le choix qui a été fait, c'est que même si beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de producteurs locaux, beaucoup d'importateurs sont prêts à payer à 5 francs par kilogramme commercialisé, nous, nous sommes limités par kilogramme commercialisé pour les produits locaux et 1,5 francs par kilogramme pour les produits importés pour la redevance. C'est pour éviter que cela ait des impacts négatifs en termes pour le consommateur. Donc l'élasticité de la demande est faible à ce niveau. Donc tous les opérateurs sont d'accord sur ces montants-là. Même si au niveau de l'ARM, on aurait aimé, euh, comme l'a formulé le DG M. Amoud Abdoulsi, pour lui, euh, on devait aligner 2 100 millions de francs CFA pourront être collectés dans les premières années, tout en sachant que euh, c'est un processus qui vise à être généralisé sur d'autres produits horticoles. Les trois filières de départ, oignons, pommes de terre, carottes, c'est juste une phase pilote peut-être, une phase expérimentale, mais normalement, une redevance doit être payée à tous les niveaux pour permettre aux régulateurs d'avoir les moyens de mailler tout le territoire sénégalais par rapport aux importations. Docteur Mounirou Ndiaye, je vous remercie. Merci beaucoup.